jullit ñëpp tàmbali takk seen bagage di gàddaay waaye nag gàddaay gi yombutoon ci jullit ñi ndax yéefari ñoom lañ daa def mooy képp kuy gàddaay dañ lay wax ne la ñaare mën a am mooy li nga yor ci alal lépp danga ko fi bàyyi ñu gunge la ba ca bitu dëkk ba jox la saw yat ak mbub mi nga yor rek te nga dem soo ko mënoon nag duñ la bàyyi nga génn dëkk moom ndax yow ku mel ne soxee bu soxee bu ruum yi xam nga ab Romain la woon nekkoon ca dëkk ba doon foofu jàmm ba mu goree nag nekk fay commerce ba am fa alal ju bare bare bare bare bokk ci commerçant yi gën a mag ca dëkk ba ñu fa ëppoon xaalis soxee bu moom dalaa nett li ni ba mu bëggee dem waa Màkka dañ ne ko soxee bu yow doo mën a gàddaay ndax yow li nga yor fii ci xaalis ak sëb commerce bu dox bii nga yor ci nii duñ la bàyyi mukk nga di ko buub di yóbbu loolu xalaatuñ ko mooy leen waaw boo fi bàyyi alal ji yëpp ngeen bàyyi ma ma gàddaay ñu ne ko waaw mu ne kon bàyyi naan alal yëpp ay mu mu génn ak mbubbum kesem wuti madina maanaam ñooñu moo tax yénte ba mu ba mu ko déggee rek dafa ne rabi rabiha suhayb maanaam yow sa njaay mi jar na mu yàlla jënd na ko am na keneen koo xam ne moo gën a kii sax am na ku ñëw abu salamata abu salamata moom day njëkk gàddaay ci la bokk moom ba muy gàddaay mbokki soxna sa mbokki soxnaam ci boppam ñoo ne ko dégg nga am su maanaam yow mën ngaa dem waaye sa soxna si doo ko yóbbu da nga ko fi bàyyi yàlla dogal mu wax a wax a wax a wax ñu téye soxna si bañ ko téye ba mu ba mënu ca dara mu ne naa fi bàyyi soxna sa njaboot yëpp te dem yàlla dogal ab ab ab xëccoo jut mooy mbokki abu salamata ñëw ne mbokki soxna si doom ji moom du ngeen ko téye ginnaaw feex ngeen ba feqali koog suñu doom ji moom seen moom seen doom ji jigéen ji faaw doom ji dangeen nu koy bàyyee doom ji góor ji ba amoon ñu ne ko fa xëccoo maanaam mujj lox xale bi ñu ne ko xëccoo ci xëcc fi xëcc ba loxo xale bi ne te xëcc ci seen kanam maanaam ñi ñi mbokki ndey ji yóbbu loxo ba ñuy yóbbu daji rek te loolu lépp teewut abu salamatoom bàyyi leen fa bàyyi leen fa dem gàddaay yàlla dogal soxna si soxnaam mujj na fekk si ko sax waaye moom daa def bu set bu xëyee day dem ba ca benn fi ñu al ab tax mu toog fa di jooy di jooy ba ngoon mu del si kër gi mujj nag ba amee at ñu yore ko ci loolu ne ko mën ngaa dellu dem fekk si sa borom kër kon ñoom gis nga bi ñu doon gàdday it Omar ibnul Xataab moom it ci la gàdday ànd ak mbooloo mbooloo mu bari ay Omar moom ab gàdday mu wut na gàdday yu bari moom day damay jege léeg-léeg moom day day maanaam day maanaam du mënuma ko tudd ak tooñ sax waaye moom bu ñu gàddaay daa ñëw ba ci penc mi neen yéen koo ci xam ne bëgg nga say doom nekk jirim say soxna muuru la topp ma ci ginnaaw xur yi maa ngi gàddaay maa ngi gàddaay léegi nee nañu ne ah kii wax kii dégg kenn topp ko li nga kon loolu daal moo doon gàddaay gi foofu lañu tàmbalee nag gàddaay xam naa insha allah foofu lañu yem ren bu soobee yàlla bu déwee ne bu nu ko yàlla bàyyee nu tàmbali ci ci gàddaay googu jëm kaw waaye liñ ci dégg mooy dunduk Seydina Muhammad lu mat di jàngat la li ma waxoon itam nun rawatina nun murit suñ ci wax daa wax ne seeni baay ci diine ñooy saxaaba yi wax moom sëñ bi itam ne yónnante ba moom la teg bët moom la def royuwaay nga xam ne yónnante bi itam sëñ Tuubaa ko donn ci zahir ak baati waaye nun murid itam suñu yitte mooy doon saxaaba yooyu la ñu war a def saxaaba itam gis nga pëstéef lañ àndoon li ñu def ci murid gi lépp ci pëstéef foofu lañ ko jàng len len lu ci juyóog la ñoom lañoo lañ nekkoon amut pëstéef it la koy jur mooy bëgg bëgg gu tar boo gisee jamono ji yenn kuréel yi nga xam ne bëgg mooy tur seen tur sax ndax loolu da leen di gën a teel mooy ñoom lañ ñàkk ma pëstéef boobu leneen ko xam ne mooy dañoo bëggut yonante maanaam mënu ma ko tuddee bañ yonante bi sax waaye masalam lépp lu aju ci mag dem yonante bi ak lu koy jox fulla ak lu koy jox daraja dañ koy xeex boo ne sayyiduna ñu ne la bàyyil saw yu digi day wax muhammadum kese rek boo ne naa ñaan ci barkam ñu ne loolu moom xaraam nga ne naa fi jógee dem siyaare ji xabrom ba ñu ne loolu xaraam lañ bëgg mooy siyaare jàkka ja jàkka ja moom sorong yaag tëpp yaag yii ni nga fa siyaare ji nga ne ñaari way jur yonte bi ñen la ñu ñëpp ñee nga cee sawar noonu lañ ko topp nga xam lépp lu aj ci yonte bi mooy masala yi yi ñu xulóob maanaam maanaam borom xam yi ak gaa yu baax yi mooy yooyu rek lépp lu aj ci yonent bi la ko war la ko waral it wax naa ko fii at at yu bari mooy politique la mooy nit politique yi bëgguñu kenn ku màggal yonent bi foofa ndax buñ ko yàggee def waa njabootu yonent bi mën nañoo faa bëgg a nekk buur te ña fa nekk buur jotuñu ak yonent bi dara ñu bëgg na génne màggalu yonent bi ci xol yi jullit ñi ba nga xam ne maanaam kenn du xalaat ni ñoom ñoo war a yor réew mi wala ñoo fa jiite wala ñoo fa war a teg dara loolu rek moo ko jur waaye niñ ko defee daa daa ñaaw ndax daa mujj doon ab xalaat boo xam ne ñu bari dañ ci ànd di ko di ko doxe te muy lu sori lislaam ndax ilaahi din bëgg yonte bi du nekk ci xol fekkee da nga ko jàpp maanaam waa joo xam ne yéen a yem ilaahi din bëgg yonte bi du du nekk ci xol loolu nag li nu yàlla dimbale nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom daa yeesalaat diine ji yàlla ci moom tànn ko yeesale ci moom diine ji mu indi la yonente ba doon jàngale na ko yonente bi doon jàngale rek yokk ci woñ bi li ci politiciens yi génne mu dugalaat ko ci moom sëñ bi lañ ca dugal te bokk ci mu génn ko ci loolu nag waxtu na may wax ne mooy la sëñ Tuubaa nekkoon ak la mu doon jàngale laa wax waxuma nag nun sama classe gi liñ dund nii nga xam ne dañ ko tuddee murit waaye la sëñ Tuubaa doon doon jàngale loolu mooy la li yàlla bëgg ko ci ne te la ca la yonente bi nekkoon ak saxaabam kon bëgg googu gis naa ne daal gisuma lu ko gën a gaaw ci maye positif Sëriñ Tuubaa itam bu fekkee bëgg nga di gën a jege itam dee ko jéem a dolli koo sopp mag ñi àndoon ak ñoom mag ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa leen yàlla defaroon mooy bëgg gu tar ci Sëriñ Tuubaa xañ leen sago fees dellu seen xol moo tax lañ daa def ci sëñ bi loola dawuñ ci am benn complexe maanaam dawuñ ci am maanaam lenn lu leen koy mën a tere maanaam Sëriñ Tuubaa moom booba lañ gisoon teg ko bët jéem di jéem ak ci moom yàlla yàlla dafa tawfeex loolu xam naa dañ ci waxtaan ci yeneen jamono waaye sëñ bi dafa tënk yonente bi dafa xam ne foofu wa akmalul wara xalqan wa huwa bokk wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahra wal mislu qattu lam yura wala yura fi siyami loolu mooy tënk yonente bi alayhi salaam dafa xam ne moom ci wàllu bind moom yonente bi alayhi salaam moo ci gën a mat ñëpp wàllu jikko itam ci moom lañ koy jànge ndax moo ci gën a mat ñëpp ci wàllu jikko loolu itam bu waxtu guddoon dañ ci joxe misaal mooy yonte bi wax ni ab bindam xam ngeen ne bokkut ak bind bind nit ñi ni ma koy wax lu bare bari ndax yonte bi maanaam kanamu yonte bi ni ko saxaaba yëpp misaale soxna Aysa misaale ko noonu ak ñu bare bare bari mooy dafa àndoon ak leer goo xam ni bu lëndamee maanaam dee ci gis leer googu jaabir ibnu samurata li mu wax ne mas naa am génn guddi goo xam ne xam nga booba làmp yi amagut weer bi daa génn mat fukki weer ak weeru fukki fan ak juróom nekk ci digg asamaan may dem bu ma xoolee weer bi xool kanamu yonte bi ci guddi gi waaye ne kanamu yonte bi moo gën a leer fuuf weer bi dàq ko jaabir ibnu samurata noonu noonu la wax sayidna sayidatna Aysa moom dafa xam ne nos nas na puso ci leeru kanam yonte bi alayhi salaatu wa salaam maanaam puso ba puso mu rot yonte bi dugg mu gis puso bi jël ko dugal ci wëñ ci ñaw maanaam googu googu kanam bu ko tëg suñu kanam yi nga xam ne bu lënd bi doo gis tur alayhi salaatu wa salaam ñaare ba yonte bi masalan bokk na ci li yëm maanaam li li yëmu ci moom ab bind mooy fi ne amutoon ker fi ne lu naaji tàng-tàng doo gis ker ci moom amutoon ker ma ne xam ne leeru kese la woon naa leer mooy li amut du am takk leer mu doo tam am takk leer weñ musta dal ci kawam man weñ ñi dañ fu ne lañ jaar fu ne la ñuy dal ci kaw sonal ak yooyu waaye mus mus ñu dañ ko daa moytu moom alayhi salaatu wasalaam te itam li xoroma ci yonte bi mooy guddi ni ñuy gisee ci bëccëg ji bu leeree noonu lay gisee bu guddee xaw boobu ba tey wut naa suñu bés mi noonu bu lëndamee ni doo boo jaaree fi mbir bi mbir bi jàll mi maanaam doo gis foo jaar moom nag lu mu lëndëm lëndëm du tee mu gis ni muy gisee bëccëg alayhi salaatu wasalaam ak lu xoromu loo xam ne bi ñuy doog a farataal julli bi leen daa wax ne ahsinu salaatakum fa inni ara min xalfi kama ara amami wala araakum min xalfi kama araakum amami li imaam ahmad na ak ñeneen ñu bare bari mooy da leen wax ne ni ngeen di jullee seetlu leen ko man ni may gisee li sama kanam laay gisee li ci ginnaaw alayhi salaatu wasalaam lu xoroma nga noonu loolu kenn mënu koy fële maanaam fi ne ni daana sëlmal ne diw sa julli gi li nga def nangam ak nangam baaxut loolu mooy li ñuy wax akmalu wara xalqan man ni ko yàlla binde bind boobu ak jëmm jël kenn mësu ko gis xulqani noonu mooy jikkoom it kenn mësu ko gis ndax fi ne li muy kawe kawe ak li muy baax baax fi ne moom aw dàllam fi ne bu bu bu nekk na ay xadis yu bari yoo xam ne yaa am da ngaa ñëw day kenn ci kilifa yi day ñëw fekk ko ci kër gi mu yor aw dàllam dàll bi dafa dagg dafa dox ba dàll bi dagg mu yor ko di ko ñawal boppam ak di ko dabb daaxel boppam maanaam di ko def dàll yi caax yi nga xam ne mu am di ko defaral boppam maanaam foofu nga ñaare ba itam yére yi daa sol maanaam bu yére xam nga bu njëkk yombutoon daanaka yére yonte bi da nga ci daa wàññi ay dabb daaxe yu bari bari yoo xam ne moo koy ñawal boppam nga wut sagar wut fusam ñawal ko boppam du ko def loo kenn maanaam yooyu nga war a fekk biir këram alayhi salaatu wasalaam daa toog ak ñëpp ku ma saa wéradi mu seet la wax na ne biir Makka soxna si gën a yi ñu jàppoon ne moo gën a xew ci ci dëkk bi daana ñëw ne ko yonte bi kaay xoolal ma sama sama kii bi jàpp ci loxoom bu ko ba gën a moom dëkk bi di ko xool loo yoo xam ne day ñàkk fayda ci bët nit ñi alayhi salaatu wasalaam foofu noonu la meloon yàlla yàlla def taas ci moom bàtte ci moom waxoon naa itam ni ma ko waxoon rek mooy mooy Sëñ Tuubaa moonu na nga koy sant bu baax moom Sëñ Tuubaa mi nu xamal njariñul gàmmu ak li ci ne ak li mu wax ne ay secret nit yoo xam ni maanaam jaaduwut ñu di ko feeñal ci ci kawam def moom xam na koom xam na lépp waaye da wax ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu id sawnuhu anil baraya yan xatim mooy des ko war a nëbb secret yooyu waaye nee na secret ngi ci yu bari yoo xam ne des ko yoo xam ni des koy nëbb des koy lëm yooyu nag bokk na ci lam ñu ci wax te mooy li mu wax ne ku koy ku koo xam ne fonk nga bis bi di ko màggal deesu la xisaab ëllëg mooy duñ calcul seen bi say mbir yénte bi daa ne kuñ calcul say mbir ëllëg dañ dañ la dugal sawar yàlla man noo ko sa xisaaba xusdi ba ba ci man ak xisaab du mariam loolu la yénte bi daa kuñ ci lijjanti say mbir calcul ko dañ dañ la dugal sawar ndax li ngay jëf masalan julli gi nga julli rek nii maanaam yow li nga li sa xel dem ak li nga fi xalaat maanaam munoo munoo am yaqin ci ne julli nga genn julli bu yàlla nangu fi rawat nag li nga fi lijjën li nga fi jaar lépp dërëm boo ma sa am ñu laaj la foo ko jële noo ko fa jële foo ko dugal noo ko fa dugal calcul boobu benn par benn suñ ko def sa affaire du baax daa am ñoo xam ne lay jëlal rek maasale romb lu bari ne baax na ah kii ah kii fu mu bokk ci waa dara mu si baax kon ni mu amee ci ci ci bureau yeeg yéen loolu mooy am yomul xeex lu bari bari am na ñoo xam ne duñ duñu am benn coono foofu mooy li mu am ne innama yo lu ko waxee ñi muñ muñkat yi rek te muñ murit moo murit ak muñ ci jiit ajrahum bi xayri xisaab xisaab mooy amul kalk yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab Sëñ Tuubaa nag dem wax naa li mu wax lépp bokk na ci li mu wax nga xam ne dafa wax ne fa man taaman hayya li man lahu qad xaraa mubajjilan fa xabaa xayraati ahlil himmami képp koo xam ni defar na ci xéewal gu baax jox ko ñi koy màggal ñoom guddi gi bu pare boole koog di màggal mubajjilan mooy nga boole koog maanaam màggal guddi gi ci sa xol nee na kooku xabaa xayraati ahlil himmami mboolem borom yitt yu kawe yi borom positif yu kawe yi lañ am ci lu baax lépp yàlla dina la bindal fi yàlla bu ñu toll kon loolu lu lu lu rëy rëy ngi noonu lu rëy rëy ngi noonu Sëñ Tuubaa itam bu dee ci màggal li ma dégg ci Mustafaa lay di ko wax ne Sëñ Tuubaa dara wax ne màggal Tuubaa da cee waxoon ne lu ci waay am maanaam li tàmbalee ci gileem ba ci ba ci ginaar maanaam lu ko lu ci waay mën nga defal ko ko ci danaa wax ni suñ tubaab suñ misaal yi laa dégg muy wax ne suñ bi dajaa wax ne koo xam nag amut ci yooyu dara man amoo loo mën a jëndee da sax ginaar na nga bàyyi ba bis ba nga dem ña ko am ba def ko xéewal yooyu ña ko am ba ba ba ba waajal ko ba mu sell nga jëfandiku ci te war a ci pëstéef boo ko amee yaa ngi ña ko def yaa yaa yaa ko ña ko def yéen a bokk teewal loolu mooy li am ci gàmmu rek mooy koo xam ne mënut a def dara itam jéem a la lijjanti ba fu ñu ci defee xéwal rek nga dem te fasté te def te positif su ko dee yàgg ñoom ñëpp ñu bokk. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.